Euh, mbokk yi tey ñu ngi fii euh, tey ci àllarba le 30 mars 2022 mu def benn point de presse ngir xew-xew bu mag boo xam ni moom la ñuy waajal xew-xew boobu muy euh, journée culturelle islamique bu rajo Leeral FM bi nga xam ni ren jii mooy cinquième édition bi muy nag ab xew-xew boo xam ni dafa làmboo lu bëri booy xool côté diine da ciy feeñ nga xool côté culture da ciy feeñ nga xool côté social da ciy feeñ nga xool côté sport da ciy feeñ même santé yooyu yëpp euh, ba ci économie programme yi ñuy def da koy làmp ren nag ñu war koo def le 2 avril ñu le 2 avril ba le 4 jubluwaay bi nag du lenn rek lu dul vraiment euh, li ci njëkk maanaam euh, def suñu warugar ci sunu diine waaye tamit ci askan wi loo xam ne luñ mën a def loo xam ne da leen di jëriñ parce que cible bi moom ñëpp la programme yi góor ñeeg mag ñeek ndaw ñeeg ñëpp dañ ci gis seen bopp programme bi tamit le deux mooy nekk euh, cérémonie d'ouverture bi monsieur le gouverneur moo ko war a ibbi ak euh, monsieur le maire dalal gan yi ak yeneen gan yi fi ñëw ak ñuy jóge ci euh, région yi yëpp docteur Mouhamed Ahmed Lo di borom xam-xam bu mag war fay def benn conférence boo xam ni euh, fam jëm mooy rôlu euh, kiiwu lislaam maanaam gisuñu lislaam ci suqali am réew wala développé ko ci guddi gi am na programme boo xam ni xat anachidu xale yi la mais bu nu xëyee suba la 3 bi mooy nekk concours alquranul karim ñu mu nekk concours boo xam ni régional la vraiment di concours boo xam ni fukki daara ak juróom ñoo ci war a jongante ñoom ñëpp ñu mokkal alquran cinq premier tamit war am ay cadeau yu duun yoo xam ni yu am solo la bëgg déwén mu gën a yaatu beneen déwén ñu dem sax ba mu nekk national ñu dem sax ba mu nekk international bu dee euh, ci guddi gi le trois ci guddi am na benn dissertation boo xam ni ci wàllu philosophie la jëm xale yi nekk terminal xale yooyu ñoom lañ koy defal ñu ñu jël euh, ay prof yoo xam ni ñu màcc ci wàll wi la ñu defal leen waaye rawatina teral ci lu war téeméer ak juróom fukk ci ay jigéen ñoo xam ne danoo yëg ni ñoom kat Eh, danoo war di muur seen cër lan doon sol yu gàtt ak yu bon ak yu dang ñu tàmbali di góor góorgóorlu di muuru ñu ñu leen ci motiver nag di leen jox ay muuraay ak i jilbaab mais la 4 bi nga xam ne mooy 4 avril bu ñu demee ba def suñu fête de l'indépendance ba pare incha allah rab yi am na lu ñuy wax jàng du wees jàng du wees nag ay téeméeri téeméeri jigéen la yoo xam ne ñi ngi ci eh, daaray ngoon yi dafa jàng seen alxuraan dafa jàng hadis dafa jàng attay fiq yi di xam lu bëree bëri seen diine am ñoo xam ni am nañ sax juróom-ñaar fukki at wala lu ko ëpp wala lu ko jege di ca jàng ba xam ci lu bëree bëri bëri di ci ko njàng du wees ñoo ñit nag la 4 avril boobu di la def seen euh, prestation incha allah rabbi ci guddi gi xale yi nga xam ne ñooy def yenn anarchie yi te nekk Dakar mel na ay salsabil jotte leeg euh, daarul arqam ak shababu zaman ñoom ñu ñëw bëggal seen moroomi xale yu ndaw yi su ko defee programme bi jeex kon daal programme la boo xam ni comme ni ma ko waxee woon rek ci secteur yëpp la làmboo loolu nag da ngay gis ni dafay mën a indi cohabitation pacifique ci ñuy dund dafay créer encore ay activité yoo xam ni day gën a jaxase gën a boole gën a euh, muutale aw askan woo xam ni ñu ngi dund te loolu euh, vraiment diine da koo soxla diine tamit da koo santaane lii euh, ci tënk xëy na incha allah rabbi euh, professeur Niang dina ko euh, wax français su paree ki nga xam ni moo moo jiite lu jëm ci wàllu njàng du wees bi journée boobu moom it dina ca amuy sa cëndu su pare ki nga xam ni moo jiite euh, lu jëm ci journée alxuraan bi ndax journée alxuraan bi dañ ci ànd ak waa fédération des écoles coraniques ñu war koo def ba pare war cee teral encore juróomi xale yi nga xam ne ñooy teewal région bi ca concours Sénégal bàjjanu xale yi taxaw ci yaayu xale eh, bàjjanu daara yi taxaw ci yaayu daara yi taxaw ci ñooñu incha allah bi ma sañ Ndiaga Mbaye wala sëñ Ibrahima Dramé wala sëñ eh, Ali Ngom kenn dina ci wax leeral loolu bu baax a baax kon damay jox rek eh, professeur Amadou mu tra mu Donc comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes là pour faire un petit point de presse euh, pour la journée des les journaux culturels qui sont organisés par la radio Leral FM. Depuis quelques années, on organise ces journées culturelles euh, qui ont des beaucoup de domaines, dans le domaine de l'économie, social, dans le de la santé, euh, dans le domaine Donc la, la radio Leral FM donc, touche tous ces domaines-là. C'est pourquoi chaque année, on vient faire ce qu'on appelle ces journées culturelles. Mais le savez, la pandémie depuis 2019 avait fait que on n'a pas fait ces activités donc de 2019 jusqu'à 2022. Cette année-ci, on compte organiser cette activité euh, en grande pompe euh, qui sera animée par beaucoup d'activités. Parmi ces activités, il y a la première activité qui sera ouverte le samedi 2, donc avec une grande conférence animée par le docteur Cheikh Mohamed Ahmed Lo, à partir de 9 ici au niveau de la place civique de Louga, devant la mairie de Louga. Donc après, après cela, le, le, le, dimanche, 3, dimanche 3 avril, il y aura également euh, un concours sur la récitation du Coran, donc en collaboration avec la Fédération nationale des écoles coraniques, qui est représentée ici, euh, à ma droite, euh, par M. Ramé. Et également le troisième jour, c'est-à-dire le lundi 4 avril, nous aurons ici l'édition Django d'Ouest. Django d'Ouest qui est strictement réservée aux grandes dames, aux, avec les âges un peu avancés, et qui ont 70 ans, 60 ans, euh, qui ont trouvé la nécessité de vouloir apprendre leur religion, ceux-là ou bien celles-là vont venir ici faire leurs prestations, montrer qu'il euh, n'est pas trop tard de, de, de se consacrer à sa religion. Donc voilà les quelques grandes activités. les trois grandes activités principalement. Maintenant, euh, l'objectif principal, comme je l'ai dit tantôt, de ces, de ces journées culturelles, c'est pour montrer que devant le public, devant l'opinion nationale et internationale, que la radio Leral FM travaille sur différentes activités. Parmi celles-ci, euh, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé, parce qu'on organise des journées de consultation gratuites souvent, mais également dans le domaine de la culture, dans le domaine de la religion. dans tous ces domaines-là, la radio Leral FM travaille euh, avec euh, le, la, la Belgique, mais également avec la Fédération nationale des, des, des, écoles coraniques. Voilà, en, en, résumé, en résumé. Le dimanche également, on a intégré également une autre activité, donc une activité pédagogique qui concerne surtout les élèves de la classe de terminale. Les élèves de la classe de terminale qui doivent subir le, le, le baccalauréat d'ici quelques mois, on a jugé nécessaire d'intégrer cette activité-là c'est-à-dire une conférence sur la technique de la dissertation, mais également sur le premier domaine du programme de la philosophie. Et ce programme-là sera animé, cette conférence sera animée par deux professeurs, donc M. Mamoudou Diallo, qui est professeur au niveau du lycée Malik mais également M. Omar qui est professeur au niveau du lycée de Louga. Voilà, donc je vais directement donner la parole à M. Tiendou, qui est responsable de ce qu'on appelle le Django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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Sénégal mbokki àdduna gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonentam sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen tatagal waaye di am mbégte ak kontaan lool ci jàkkaarloo Sénégal ci jàkkaarloo àdduna waaye tamit di leen yëgal ak di leen fàttali seen bis boobu nga xamante ni ñu koy am le 4 avril incha allah ci Louga waaye tamit fii ci place civique en face mairie muy gis koo xam ni dañ koy tollanti ndax yàlla dogal na ne festival bi yàgg nay am yàlla dogal ba mujj am dañu ci invité waaye ñu gis ci ay martaba yu kawe lool ci soxna yi nga xamante ni comme ni ko ñëpp waxee am 60 ans 70 ans wala lu ko ëpp nekk ci daara yi di fàttali konte ca la nga xamante ni moo nekk ci téere borom bi subhanahu wa taala ci ay ahadis ci ay fiq ci siiratu nabawiya ak lu mu ci doon ba tax na incha allahu rabbi xëy na temps bi moo na ko dul may waaye bu ñu ko mayoon sax dañuy wax da nga xamante ni moom la ñuy fas yéene amal foofu bare na lool naam waaye gis la boo xamante ni incha allahu rabbi ñu ci woo Sénégal yëpp ci woo àdduna yëpp di woo waa daara siraatal mustaqim yëpp di woo waa daara sàkku xam-xam yëpp waa daara sopp sayyidina Muhammad sallallahu alayhi di woo daara jamiyatul xayriya ak bépp daara boo xam ni yaa ngi ci biir Sénégal ndax waa daara as siraatal mustaqim bu ndar sax pare ak bépp daara boo xam ni yaa ngi ci biir Sénégal kon bu ko defee mbokk yi incha allahu rabbi gis la boo xam ni mën nañ wax ni programme yi dana ca bare lool soxna yi daanu ñëw ñii tëri alquran ñii def xadis waaye tamit nag daañ ca amal benn mbir moo xam ni kenn ku ci nekk bu doon sa sabo loolu da nga xam waaye da nga mën ndax nag kullu nafsin zaiqatul mawt gis la boo xam ni incha allahu rabbi daañ ca amal benn programme boo xam ne tamit euh, daañ ca jàngalee naka la ñuy waajalee aji ji bu ko defee incha allahu rabbi yooyu yëpp ñu ci bis bi kon bu ko defee mbokk yi ñu ngi ci woo ñëpp di santaat rajo Leeral FM moom mi nga xamante ni du tey rek la ñu tànnal bis waaye mi ngi ànd ak ñun defal ñu ko émission ci rajo bi ñu koy amal saa su ne kon nag di ñaan yàlla comme ni mu ko ñaane woon daaw buñ koy mujj def yàlla na yàlla may ñu ay déwéni déwén tey toogaat nañu ba banaan incha allah le 4 avril la yàlla nañu ñu te yàlla defal ñu ci réussite totale incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu kon ñu jox euh, Cheikh moom mi nga xam ni moo jiite euh, des écoles euh, mu wax bisu alquran bi le trois mbokk yi ñuy jàkkaarloo mbokk yi ñuy déglu ñu ngi leen di leen ziar di leen ñaanal ay sàkku si yéen ñaan di leen fan ak di leen ban ak di ziare jëmm teet yi ñu toogal euh, te li war a jotaay bi muy benn semaine circulaire boo xamante ni euh, leeral na daa euh, baaxoo di ko def ak ñu jot incha allah mu ne leen dañ kaa tollaa lépp bu sottee doon njëriñal lislaam mu am ci nag ab euh, pàcc boo xamante ni dañ koo jagleel daara alquran jagleel ko alquranul karim ci région bi ak département bi ñu teew fi nag teewal fi niveau euh, régional seen njëga mbay waaye teewal fi niveau départemental su ma tuddee sama teewaay ak teewaayu oustaz Mansour Fall dana mën a yóbbaale moo leen suñu bu ko defee nag ci loolu mu doon bis boo xamante ni dañoo bëgg mboolem sëriñ daara yi mboolem jàngalekat alxuraan yi mboolem ndeyu daara yi mboolem soppi alxuraan yi nga xam ne bis boobu maanaam seen bis la la tombé le 3 euh, avril incha allah fii ci barab bi nga xamante ni moo jàkkaarloog mairie bi te ñu tudde ko Alxaaji Mansour Bouna bis boobu nag am na fukki donga ak juróom yoo xamante ni incha allah danañ ci def ab jongante jongante boobu ñu cay def waajal nañ leen ci ay neexal yoo xamante ni neexal solo la yoo xamante ni képp koo xamante ni fekke na ko xamante ni taxawal ci bi jox nañu alxuraan sëpp loolu weesoo tamit candidat yi nga xamante ni ñoo war a représenté réseau Louga ci concours alxuraan bi nga xamante ni moom la def am ni jot ak di ko ak euh, Sénico juróomi candidat yi nga xamante ni ñoo war a teewal réseau Louga incha allah danañ leen sargal danañ leen wane danañ leen euh, fàggal fii ci barab bi ñëpp xam ne juróom yi ñoo teewal incha allah loolu doon leen ak njàmbaar bu ko defee kon bis boobu ñu ngi képp koo xamante ni ñu ngi te alxuraan ñor na dekkal nga bàyyi sa bis boobu dimanche 3 avril incha allah fii ci barab bi ñu daje fi maanaam rendez-vous bi yëpp fii la bu ko defee ñu ngi ñaan suñu borom ñu ngi seen jàmm te defal ñu si képp koo xamante ni bëgg ngaa jàppale alxuraan boo ñëwee ci bis bi da ko fekk ñi nga xamante ni boo ànd ak ñoom incha allah da nga ànd ñoom jàppale alxuraan ñu ngi sant ñëpp si gërëm ñëpp di ñaan suñu borom lépp lu ñu lépp luñ ko def ñu doon si jàmm yàlla bu ñu nangu asalaamaaleykum wa